même si vous un pouvoir en cassation ou la décision tant que ne suspend pas la décision nous ñu un peu ko quoi mu dans le vague ñu dem ba fële ba tribunal cour suprême nous ba bu ne damay sénégalais donc nous cour suprême cour suprême taxaw ma cour suprême bobu mo taxaw ne leen ma mais ñu dem ba sénégalais jox gars yëpp concentré wu jour boobu ci cour suprême mu ne sénégalais yi hé eh, attewu ma. renvoyé sans casser. ren mu ne leen attewu ma dama koy renvoyé dama koy renvoyé benn tribunal or classe de Dakar yow lu mel ni cour suprême ñu yéeg ba ci yow. nga ne sénégalais yi hé eh, kaay leen déglu ma sénégalais yi ñëw daw taxaw jox la nopp ma ne leen d'ailleurs sa man cour suprême attewu ma. dama koy renvoyer tribunal bu ndaw pour affaire bi yéegaat lolu moo tax ma ne leen muy law muy law ñu koy gis muy law ñu koy gis muy law ñu koy gis Sénégal yi lay nopi bañ cee addu ñom magistrat iems était là union des magistrats était là donc da nga japp ni le mal est beaucoup plus profond comme ton mais c'est wax naa la ko ne la le mal est beaucoup plus profond lolu yëpp mu ngi law depuis Ziguinchor mu ngi law ba Dakar muy law law di yegg au sommet ñom ñëpp ne di nopi parce que ci moment bobu ben nit lañ gis Ousmane Sonko comme comme quand il s'agit de Ousmane Sonko tout est légal mom moment bobu gis nga yalla lu muy defee mbir yi ñoom moment bobu Ousmane Sonko lañ gis comme certains ne voulaient pas que Ousmane Sonko mu nekk candidat. ñu hmm. nopi ñu noppi. mais c'est ça c'est ça la réalité. certains voulaient que euh, Ousmane Sonko. oui bu bon, bu que candidat ça va faire notre sauce ci élection bi que ça soit de l'opposition, que ça soit du pouvoir. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous mapi. Affaire bi continue di law law law law ba conseil constitutionnel. Ah gars nous voilà. ñu pas nous ni nous Nous que ñoom de comme affaire bi na nous ñu nous mu dem cour conseil constitutionnel ñu dit comme nous Nous nous de nous candidature yi dinañ ko Nous maintenant il la le wulé nak est-ce que Sabasy fay mo ñu yobé eh, commission d'enquête parlementaire non est-ce que tribunal hors classe de Dakar mo ñu commission d'enquête parlementaire non légui wax leen ma lañ mo ñu conseil commission d'enquête parlementaire conseil constitutionnel <laughs> voilà heureusement nakul Sabasy fay bu joxone décision fi ba ñëpp pour ni que du magistrat bu magistrat bu ndaw la magistrat boo xamante ne frère dafa nekk fan. ci mairie bu Ziguinchor foofu lay liggéey. ñu ñëw ba tribunal bu Dakar mu am benn Ousmane comme adresse. Ousmane Racine Ousmane Racine Thiam joxe décision heureusement nekkul magistrat yooyu moo ñu ñoo ñu yóbbee ci lii heureusement ñoom il peut s'en réjouir magistrat ñaari magistrat yooyu malgré leur courage jàmbaarte mais les les gens am na vu que ñoom seen liggéey lañ def mm. heureusement nekkul erreur bi tey. nakul nakul ci ñom ñu dem law law law ba conseil constitutionnel ñu ne voilà conseil constitutionnel kese lañuy ñuy déglu sénégalais foo sandi mbàcc mu tak ñun ñëpp instant ni conseil constitutionnel lañuy ñuy déglu conseil constitutionnel ñoo daf ligéyam ñom ñi doon taxaw ne conseil constitutionnel kese lañuy ñuy déglu ñoom tey ñoo taxaw tay di mettre les bâtons dans les roues du conseil constitutionnel dafa dama la wax affaire bu grave gis nga jafé jafé foo ko natt weesu na fa. voilà c'est clair c'est clair. tay l'affaire le mal est beaucoup plus profond dafa jël un déclic dañ on est à la croisée des chemins sëñ bi justice bi tey ñu wax kan mo set ñu wax kan mo tilim ci justice bi parce que croisée des chemins lañu. Mm. sauf qui peut que ça soit ci magistrat que ça soit tay ci euh, enquête parlementaire bobu le parlement c'est pas c'est-à-dire que peut-être. Euh, enquête parlementaire lañ koy tudd wala enquête parlementaire. Oui, je ne sais pas. C'est enquête parlementaire. Euh, parle, euh, ouais, ouais, ouais, ouais, je sais bien ce que j'ai dit. Je, je, je ne comprends pas. L'angle quoi tuddé Enquête parlementaire. voilà, enquête parlementaire. En tout cas, enfin, parlementaire. Ah, d'accord, ok, parlementaire donc. donc, d'accord, enquête parlementaire donc. exactement si Bassirou Diamay Faye. Alors, Bassirou Diamay Faye, nak, bo bataille. Euh, ñi ngi nekk di déglu exactement son sort fa nga xam ne itam mooy RTS alors enfin euh, aujourd'hui avant na yenn révélation yu ce que ni vidéo bi tu n'es euh, pas obligé forcément nga daal di koy defee si zoanu RTS mën na ko def envoyé ko justement Babacar Diagne mu diagnostique ko en attendant mu koy daal di dugal mu nekk ñoo xam ne itam wax ku Abbas Fall si RTS dem expliquer na exactement le processus que ni. Bassir Diomaye Faye n'est pas obligé pour une RTS de ko fa defee euh, mën na ko sax defee sax feneen nag wala ko wala wala kon su ko neex mën na jël ay discours lu yàgg defaraat ko proposer ko li xam la RTS alors l'autre tamit nag ku na ko daal di concrètement c'est que en réalité c'est-à-dire que débat bu ñu bëgg invité sénégalais yi. ça ne tient pas. c'est pas forcé boo les RTS. mënoo battre campagne bu normal wala mënoo gagné élection. sëñ sëñ bi gis nga Babacar Babacar Diagne la et la CNRA et la RTS gis nga lu ñu réunion ba tënk ko ba naan seen candidat ci boppam moo war a moo war a wax RTS loolu binduñu ci ko ci benn loi Sénégal. si Mamadou Sy Albert démb mu ko doon weddi. kan moo ko wax euh, Mamadou Sy Albert. mu ne lan euh, binduñu benn loi que candidat bi kese moom moo war wax. mais loolu moo am. Euh, binduñu ko euh, fenn. Euh, mënoo ko kenn mënoo ko représenté ñoom waxal ko. sëñ bi yow dag maa yab dag maa yab rek <laughs> lépp li ma la wax keneen wax leneen boo xamante ne man sax musuma ko xam. ma ne binduñu fenn ci loi Sénégal wax chaque chaque jour ma wax la ko fii. Hmm. loi Sénégal musul ne. musul wax loolu. ñoom ñoo ko réñoo seen bopp. comme ñoom dañoo tënk li ñu tënk. lu ñu tënk. ba pare la loi que nee naa la loi Sénégal la ñuy jël tegee ko nee ñom lepp lu ñuy doxal que ça soit les politiciens que ça soit ñom lu ñuy def dañu jël loi Sénégal bo xamante euh mom moo ñu tënk constitution ça dit que dañu né c'est le socle d'un pays la constitution et les lois parce que ñun ñëpp ci loi ci loi lañ tënk loi moo ñu tënk ñun ñëpp sinon on serait dans l'anarchie man damay gis lu lu li nga moom ma ñoo nang ko parce que man mala la doole jaay la doole mais pour nous bañ am fokk ñu dund ci ce soko qu'on appelle loi loi mo ñu teñ hmm. ku wàcc yoon ku wàcc loi bobu yoon dal sa kaw motax on vit dans le normal on vit dans le normal on vit pas dans la jungle maintenant ñom lu ñu bëggee débat bu ñu bëggee invité sénégalais wala déclic bu ñu bëggee yobu Sénégal moy dans la jungle donc motax tax ma la sëñ bi nañu ñaan yalla ñi war ñi ñaan réew mi ñi ñaan réew mi nañ koy ñaan pour mu muccu nañu ñaan réew mi pour mu mucc ñun yàlla gënu bëgg sénégalais wala yàllu yàlla gënul fonk sénégalais que malien mm. yàlla gënul bëgg sénégalais que guinéen mm. yàllu yàlla gënul fonk sénégalais que nigérien wala ka burkinabé wax laa wax cax cax dama cax wax laa wax dafa am dafa laaj léeg dégg déggin déggin la laaj yàlla gënul bëgg sénégalais que malien le gënul bëgg sénégalais que guinéen Conakry yalla gënul bëgg sénégalais que burkinabé que nigérien il faut que sénégalais réfléchissent... revenir vers le sens le sens large du terme. moo ñom ñoom ñank ñànk diko doxal jël ben xal doomu taal diko foyé en en sachant que qui bu fa may egg ken mënu ko ken mënul mesurer c'est les dégâts que ça va causer ken mënul mesurer les dégâts que ça va causer moo tax ma la ñiy ñaan réew mi nañu ko ñaan mu muccu parce que seigne euh, sëñ bi le temps d'antenne à la RTS. Eh, euh, certes am ñu koy wax. Euh, aucune loi ne la ne la ne binduñu ko que ma Mané, RTS que ça soit la CNRA. donc yaay xaar le CNRA. kenn ñëw yebal fa ki nga xam ne que moo di Bassirou. mu daal wax à sa place sëñ bi que ça soit CNRA. que ça soit RTS ñu ko fenn fu ñu taxaw ñi diko wax ni que candidat bi ci bopam mo wara wax kenn bindu ko fenn amul ci benn texte amul man dama bëgg ñu ne ma texte bi wala article bi xam nga yii fa lépp lu ñu wax dañuy andi article bi moko wax n'est-ce pas mais nañ ma andi article bu ne candidat bi ci bopam moy ñëw jëm moy ñëw taxaw di ñu enregistrer ko nañu nañu parce que té lañuy commencer enregistrement yi pour vendredi ak samedi n'est-ce pas maintenant ñom nañ ma wax fa la ñu bind ni que candidat bi mom ci bopam moy ñeu di wax ak jël temps d'antenne il y a aucun texte qui le dit dans ce pays. donc ñoom ci seen tey bàkkan ñoom ñoo réñoo jàpp loolu tënk loolu bu ñu waxee loolu d'accord bu fekkee wax nañu bëgg a wax sénégalais dëgg nañu wax sénégalais ñun ñoo réñoo ñun RTS ak CNRA ñun ñoo réñoo tënk non sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi nañu waxante dëgg pour sénégalais mën a comprendre way nañu wax sénégalais ñun ñoo réñoo ñun ñu jàpp ni que dañu wara privilégier candidat bi ci bopam jëmmam ñoo tok wax dans ce cas les sénégalais peuvent comprendre ce qu'ils veulent dire mais il faut pas dire que oui d'ailleurs candidat bi ci bopam mo am droit quand il dit droit <laughs> c'est par rapport à la loi Sénégal candidat dem wax RTS mais lolu mais loolu loi waxuko texte waxuko parce que bu mu Sénégal nekkee Sénégal ba légui il y avait il y avait pas de candidat détenu dans les liens de la carcère de la détention yow jeexal nga wax bi du da nga ne bu mu Sénégal nekkee Sénégal ba léegi candidat yi ci boppam. Mm. mooy dem wax ci temps d'antenne mm. mais Sénégal bu mu nekkee Sénégal ba léegi lii guléet muy am. moo tax amul benn candidat bu ñu jàppoon ci prison bi te mu am temps euh, d'antenne. Euh, moo tax il y a des choses en fait en fait deru Sénégal moo si euh, empatir. franchement dafa yàqu ba pare. non Arfan yàqoogul Arfan mais ñan ñoo dem ñan ñoo dem kii ñan ñoo dem union union union union européenne di fa fësal seen naqar. mais fan li mu corriger mooy euh, sont les. Euh, ñan ñoo dem ñan ñoo dem sëñ bi c'est que da nga may euh, déglu. ñan ñoo dem Union européenne di fa ça, sa naqar ci élection bi. ñan ñan la les spoliés ñan ñoo dem ñan ñooy waaj dem ONU pour wax fa est-ce que gis nga les médias les médias yi nekk tugal lu ñuy titre ci Sénégal est-ce que am nga curiosité touti d'où ci les médias européens. Voilà, même ba ba fu mënte ne mooy maanaam ci tougal gi nga xol luñuy titrer ci suñu élection à quelques mois des élections des manœuvres politiques voilà des mots des manœuvres politiques à quelques mois du scrutin des manœuvres politiques yi ñuy xewee Sénégal médias yoy lool lañuy titrer xam nga des manœuvres xam nga lan moy manœuvre. Mm. bo le contexte mo bi. di lijjanti di ñaaxum. voilà di lijeenti di njaaxum <laughs> di diil. pour ay politiciens mën a jàllale seen candidature ci ñuy wax lu bon ci conseil nag ñuy wax lu bon suñu suñu suñu suñu suñu pays suñu réew moo tax ma ne la l'image du Sénégal dafa